te moom kenn mënu koo am su ma la déggee bu baax kon daal danga bokk ci ñi nga xamante ni dañ jàpp ni Amadou Ba warul génn ber daara boppam parce que am na ñu nga xamante ni jàpp nañ ni tey dafa war a génn euh, Benno Bokk Yaakaar dëggal boppam. waaw xam nga am na ñenn ñoo xam ne man bi ñu ko waxee euh, ça veut dire que man ñu doon pëlete di ko jàppale ci campagne bi laa bokk. mais dama xam appareil bi doon jàppale Amadou Ba benn nit laa wax bu ci mën a gagné ab ci amul. ñi ko doon jàppale ñi nga xam ne ay nitu Amadou Ba nga xam ne ñoom dañ ne ay nitu Amadou Ba ñu ay nitu président Macky Sall mm-hmm. nga xam ne dañ jug pour Amadou Ba kenn newu ci ko ay parce que man ànd doole Amadou Ba ci la bokk parce que dañ ma fa indi woon comme un ku am expérience ne am na dégg nga parmi ñi ngay wax noonu. dégg nga ku Bala duma duma nitu Macky euh, ñi ñi ñi ci ëpp dañuy ne. Macky Sall yaa ñu xooloo fii. ñun dañuy dem xool foofu. Mhm. donc li ngay wax ni kan ban exemple nga nga ñu mën a jox boo xam ne kooku moom moo ne moom nitu ma Amadou Ba la du nitu Macky Sall parce que aussi coow boobu dafa dafa bëri man cangé j'ai couvert le lancement de de la campagne de d'Amadou Ba. Mm moi j'étais là-bas bi mu ñuy xaarloo foofu il était il devait arriver à 16h il s'est pointé à 21h. Mhm. les gens sont venus mu def ko fat fa dem mais li ma constaté woon keroog. Mhm. malhonnêteté j'ai jamais vu. Mhm. une malhonnêteté pareille c'est-à-dire des responsables yoo xam ne dañuy ñëw foofu mais ragal nañu sax caméra yi jël leen pour wane ne ñu ngi yoon foofu. ça sert à quoi c'est-à-dire que foofu lay waxee yan exemple nga ñu mën a jox. ñoo xam ne ñoom ñoo ne la ñoom ñooy ne dañuy topp kii mais euh, Macky Macky Sall xam nga xam nga Macky Sall moo bi ñuy naa la bi ñuy jeexal ñenn ñi mm-hmm. dañ doon jéem a xool affaire copain ak copine ci biir coalition de parti politique ñenn ñi bëgg am ay poste responsabilité yu ñu leen di promettre te di gagné guñu ay élection mm-hmm. ça veut dire que seen intérêt personnel bopp gis na dafa am ci biir coalition xam nga dafa am ñoo xam ne depuis ci Wade mm-hmm. ñu ngi nekkoon ay directeur général ñëw ci ab Macky nekk ay ministre gis na politique liggéeyal sa dëkk la mais du say intérêt crypto personnel bopp gis nañ ci biir coalition Amadou Ba am na ay cause yu ci am président Macky sal PV agent de renseignement ci kawam la nekkoon ñun xam nañ ne benn bokk yaakaar li ñu njëkk rate mooy communication parce que président wax na ko plusieurs fois fu mu mën a dem danan man lii sama problème nag mooy communication parce que wax nga ko sànq problème de communication moo tax xam nga sénégalais yi waa waa waa li responsable benn bokk yaakaar yi ñu électoral Sénégal Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye sénégalais yi ñoo leen di fal du njàmbaaru politique moo leen fal parce que am na ci ay communes yoo xam ne amuñu fa ay responsable politique digne de son nom te gagné nañ kon sénégalais ñoo gëm seen programme choisir ko def mais ñoom liggéey nañ lu bëri ci wàllu média pour sénégalais yi dégg leen gis leen xam ñoom fan lañ jëmoon ci seen kàddu ci wax